Waza les amateurs bonjour à toutes et à tous bienvenue yéen a ngi émission versus ak seen animateur Matin Vidéo donc tey dañuy dalal ben daanaan ben beatmaker pas Passa Passa ma bàyyi la nga New York internet yi. Ah, asalaamaaleykum Passa Beats beatmaker ingénieur de son Sénégal Africa West Africa. ok donc man li ma bëggoon Moi a xam premier beat bi nga est-ce que yaa ngi encore fàttali. yeah maa ngi koy fàttali ko bu baax. nu mu demee expliqué jox ñu anecdote. foog naa genre dama amoon benn pack bu pas pas moom mooy affaire yi ngay tëggee beat quoi. et puis genre pour commencer composer di def benn affaire mais genre c'était farfelu mais au au moins j'ai rien ko def naa ko ba ma xam ne. rab nga ci wala da jox nit wala ci en fait mais amoon nga plaisir bu grave. voilà amoon naa plaisir kontaanoon naa si man quoi. pour tourner sax ma ne ko bay déglu sama beat bi déglu sama beat bi xam après noonu la commencé quoi. léegi yow sa tu travailles en indépendance wala le nga nekk ci collectif beatmaker wala. actuellement non actuellement nekkuma si kolektif collectif beatmaker mais mm-hmm. euh, maa ngi collaboré ak beatmaker yu bëri surtout instant li may collaboré ak Omzo Beat Wonder Beat li ñuy job beat en collaboration bëri na quoi mm-hmm. en fait man bañuma genre je suis pas fermé quoi waaw je suis pas fermé man moom ok actuellement yaa ngi dido si lu ma dégg waaw actuellement maa ngi job dido moom benn structure bu bees la man ak ñoom nix euh, léegi ci euh, tracklist su One Lyrical gis nañ la produit nga benn bit je crois mooy track numéro 11 bi son bu tudd DM. DM comment ça fait la connexion et tout ça. bon son boobu euh, foog naa One Lyrical dafa commencé woon son bi après mu contacté ma mu ne ma boy bi Nix la soxla quoi léegi mu envoyé ma son bi ñu toog ñu déglu déglu ba si yàgg Nix na ma boy à un moment foog bit bi foog foog son bi changé quoi tu vois. et puis boobu Omzo bit moo defoon bit bi quoi. léegi après ma woo Omzo bi man ko boy mbit bi naa ko changé tuuti ma boy après boobu si la changé son bi dem kii vibe si studio bi après am keneen ku jigéen mooy ki ngeen gis noonu madame kooku la bëgg xam kooku mooy kooku noonu kenn mënu ko xam madame la mooy tur artiste madame mooy tur artiste en fait mën naa wax ne que benn nit la nii bu nu xam mu ñëw rek toog ñu ko fii soxla leen sa voix mu def affaire yi neex mu dugal ko son mais ya, yo, comment tu vois le rap thiessois actuellement parce que xam naa ni d'origine thiès quoi bon rap thiessois avant moom mhm. euh, mënoon naa ne dafa suul woon quoi mhm. mais léegi mi ngi à gagner grâce à l'acteur yu bëri nekk foofu mhm. surtout maa ngi souligner ay tay ji seen boss beat xat xol en fait nous avons gagné a hip hop euh, ñu bay seen waar waaw ñu bay seen waar quoi dernièrement gis naa boss beat mu ngi def album ak karbala Euh, loolu c'est à souligner quoi lol. c'est un truc que j'ai toujours voulu faire j'ai def collab et puis j'avais fait ça avec euh, mhm. Cash Biz je sais pas si Cash Biz bu dëkk Rufisque j'avais fait ça mais qui c'est lol, je me contente quoi euh, boss il m'a envoyé cover bi après tout ça ma comme 21 Savage avec Metro Booming la ñu defoon seen voilà voilà ça manque ci rap ça manque ci rap en fait Sénégal man loolu laa collaboration gars yi dañ koy daw quoi alors c'est gagnant gagnant c'est gagnant gagnant man mii en tant que beatmaker man loolu moo tax genre beatmaker bu ñëw na ma mm. beat prod booy bëri laay defal commencé ku doog a commencé ku mm. yàgg ak ñëpp damay def collab quoi parce mm. que je me dis que c'est gagnant gagnant quoi léegi lan mooy paaru ci ci si it benn son bi si it bon je peux dire évaluer ci pourcentage beatmaker ban apport la am ci son beatmaker je peux dire quatre vingt pour cent quatre vingt pour kon artiste bi day ñëw rek poser voix am na son yoo xam ne artiste tu vois plein de sons par exemple euh, Diplo def na benn euh, collaboration ak euh, Miska tu vois genre son bi genre soo ko déggee da ngay xam ne it la moo tax mm. déjà sur le refrain Niska n'a même pas essayé de trouver des mots genre il a juste dit Bumba bi bit bi moo joué lépp moo joué quoi les ingénieurs son là mais apparemment ingénieur c'est lui qui mixe genre bit mën naa ne mën mm. mais ingénieur son moom moo koy euh, côté valeur voilà valeur bi ñuy soxla bit bi ok léegi moo ñëw une question un peu piquante quoi parce que on a vu tout ça génn na benn son. Hmm. elle t'a littéralement clashé. boss playa beats liggéeyam yëpp nek fi ay plage ya pit yalla delo ma platinum beats fayoo ko coono nga seetaan sama waa ji dem. dafa ne yow passa euh, pose bit hmm. euh, da ngay plagé beat. Hmm. je sais pas c'est quoi le problème en tout bon moi j'ai pas compris en fait. Yo déglu na son bon envoie nañ ma son mais je n'ai carrément pas compris bon peut-être tamit peut-être lu mu wax dëgg la peut-être lu mu wax dëgg donc lu ma ñëw naan ko mais pourquoi pourquoi mu si mu bàyyi beatmaker fi nek yëpp mu bon je sais pas man en fait je me dis jaar jaar yaa quelque chose non c'est ça man je sais pas genre mosul am contact mosul am contact affaire yooyu mais genre juste je me dis que je peux être fier de moi quoi su fekkee liggéey naa ba mu dem ba di. mentionné la pratiquement donc sa relation avec les autres beatmaker si ban beatmaker gën a proche quoi. Wiz Yad. Wiz. Wiz Yad. du Sénégal. si Sénégal. Wiz Yad ban ban son la mos a composé. Wiz Yad moo defar pression yu bëri Karbala euh, intro express mon téléphone. en fait lui il est beaucoup plus dans son monde professionnel genre li muy liggéey mm-hmm. mais genre quand il sort mu est day def beat man en fait mën naa wax ne moom moo a jox FL Studio ok ne ma nii la ñuy defee beat nii la ñuy beat bon mm-hmm. euh, des fois dama dama koy wax sax ma gars yi dañuy wax moo la jàngal ma si moo ma parce que mon moo ma woon base beatmaking mais après man m'a def mes recherches. boobu ok donc ñu daal ci deuxième partie émission bi quiz na hein? dañ le laaj ay question et tu dois être le plus rapide possible et le plus direct quoi. ce dernier son bi nga déglu sa téléphone ban son Travis Scott. titre bi Stop trying to be God. Euh, l'horaire est dem. Macaroni et ce dernier titre studio bi nga enregistré. Euh, c'est un projet avec Nix. Hmm. titre son bi. yow ak Nix c'est ça. sama C'est sama album. c'est sa album lay bokk ok loolu am nañ benn scoop ah. donc en Dakar Thiès bonne ville ne gën a préféré. Eh, ledder matches man slagen santi slagen ko jëlee Dakar situation entre afrobeat ak trap lan nga gëna préférer trap série du moment ban série ngay suivre ah dans le monde uh, strangest thing parce que lan ma wax dafa ya. neex Netflix si Netflix bon, commencé eh, une série sénégalaise série sénégalaise je regarde un peu de tout ça en couple wala célibataire ya. un couple Insta ou le Twitter Insta Ui samandai wala talu ñu fo? talu ñu fo. talu ñu parce que pour man ui samandai c'était un peu farfelu. C'était à tes débuts quoi? À tes Tu sais oh, cuisiner quel plat? Ban plat ko na to? Bon mon na to gan. Ban ban. Macaroni mon na ko to gan. Ko macaroni bi ré arrêté ba. OK, ce dernier clip regardez sur YouTube. Bon clip. Euh, c'est un boy là. Euh, Abdou Fall. C'est un Sénégalais qui est aux États-Unis. J'aime bien ce qu'il fait. OK. Donc, c'est eh, une passion pour verso musique. Dessiner natation. ok comment mën nga dessiner Tu as déjà composé pour un balafman wala. oui bon publicité la pour euh, Kiren. nga musique ce signe astrologique. Capricorne. Capricorne léegi bii la question décisive quoi entre argent succès ak reconnaissance on doon le benn. Ah, gars bu reconnaissance lañ ci On est nañuy honnête wax argent. non il y a pas genre. reconnaissance moi le gën ok donc fin quiz bi y a un message pour vous. donc ko à la jeunesse aux autres message ok bon man euh, déjà remercier yow tu vois équipe équipe caméra Radio euh, déjà man euh, message pour may passer que beatmaker genre que genre du métier quoi tu vois mm. genre man mën genre samay étude pour beatmaking et puis genre je a am maa ngi koy am li ma bëgg am maa ngi koy am et puis sant yàlla liggéey la quoi liggéey la merci beaucoup ci sa oyof am tout ça patienté lu naa lu trop ñoo far waaw se connaît dégg nga ah, jaajëf <laughs> xam si lan laa nekk abonneel ci chaîne YouTube bu Vibe